Euh, bu ko defee tey waxtaan wi kon euh, dañ koy yemale ci euh, sëñ Mor Absa mi doon waxtaane ci jëmmam léegi bu ko defee ak ak dundam bu ko defee jataay bi ñëwaat incha allahu ñu mën a ñëw jublu ci li nga xamee ni mooy soxna yi nga xamee ni ñoom la dencoon ak njaboot yi nga xamee ni ñoom la ci am incha allahu bu ñu dellusiwaatee loolu lañ bëgg waxtaane incha allahu ci jataay bi ñaareel bi kon ñuy nuyuwaat ñëpp di jégaluwaat ñëpp waa di wax ne rek waxtaan wi moom kenn ku nekk buñ ko ko sasoon mën doxal euh, dafa fekk ne li ñuy wax juróom-ñaari sëfoor buñ nekkee ci oto itam kenn doo ngay dawal waaw kenn dawal waaye teewul ñi ci des ñëpp ay ay sëfoor lañ waaw looloo tax rek comme waxtaan dañ dañ ko dañ ko séddee kenn euh, ñu séddee ma ko waaye keneen kuñ ko joxoon itam dina ko mën a doxal sax nu gën a rafet ni ma ko doxale ñu niwaat ñëpp di ziaraat ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu euh, xam naa bu ko wax li nga xamee ne moom la dencoon ci ay soxna ak njaboot yim ci am euh, suñ jëlee li mu dencoon ci ay soxna ak njaboot yim ci am euh, bañ a gën a détaillé bu ko defee ci tënk boobu ñi nga xamee ne ñoo bëgg a jàpp soxna yi mu dencoon ak njaboot yim ci am dinañ ko mën a jàpp bu ko defee bu ñu dellusiwaatee ci beneen jotaay euh, door a ñëw nag ci njaboot yooyu nga xam moom la am kenn ku ci ne lam jabootee te ñu xam leen ci groupe bi ak ñi nga xamee ni ñu ngi fi te nekkuñu ci groupe bi bu ko defee kenn ku si nekk koo dajeelati di nga xam ne a ah, kii kat bu ne kii doomi diwa rek da ngay daal di mën a xam na ngeen bokkee loolu lañ ci bëgg moo tax xam naa jotaayu tey bi du gudd ndax dañuy jël rek soxna yi ak njaboot yi ñu am bañ dugg bañ a dugg ci détails yi bu ko defee bu ñu ñëwaatee nag jotaay bu mujj bi ci la ñuy ñëw nag ci njaboot yooyu ak seeni njaboot door koo détaillé incha allah kon noonu lañ ko bëgg a doxale tey bi euh, bu ko defee sëñ Mor Absa nag euh, joto ci ak dundam jotoon naa denc lu toll ci juróom-ñaari soxna waaw xam naa bu ñu waxee juróom soxna dina am xel yoo xam dañuy daal di dem ci ni ah waa lu tax ñu ne lislaam ñeenti soxna la wax ñu ne Mor Absa amoon na juróom soxna ak borom xam-xam bu toll ni moom dina am xel yoo xam ne ci loolu la ñuy a dem euh, waaye loolu rek wax ni euh, juróom-ñaari soxna yooyu fekkante wuñ ci genn buum comme niñ koy waxee yorandoowu leen benn yoon ci genn buum ndax da daan def yenn saay mu mu yeewi soxna euh, indiwaat seneen soxna. waaw loolu dafa bokk ci euh, kilifa yu ñu bari dañ daan dunde noonu xam nga alxuraan day wax ni euh, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ixdahunna xintaaran fala taaxuzu minhu cheyan waaw dafa wax ne su ngeen demee bu bëgg a benn soxna beneen soxna soxna bi ngeen bëgg a remplacer bi ngeen bëgg a génne kooku maanaam ki ngeen bëgg a yewi fekk kooku joxoon ngeen ko da doonte da ngeen ko jox lu toll ni kentaar ci alal bu leen laajaat dara ca alal jooju bu ngeen ko yeewi na ngeen ko yeewi ci njekk ak teraanga euh, moo tax euh, Cheikh Al Hadj daan wax ne ñetti baaraam yii de Maodo saxu ko saxluwu ko kenn euh, benn bi mooy baaraam boo xam day rëdd alali sëy waaw baaraam bu naan sëy bi defoon naa ci nangam defoon naa ci nangam defoon naa ci nangam di rëdd nee na baaraam buy rëdd alali sëy kooku Maodo saxu ko te saxluwu ko kenn. maanaam tàggoog soxna di ko laaj la nga ko la nga ca defoon naan ko defoon naa joxoon naa la nangam joxoon naa nangam joxoon naa la nee na baaraam boobu moom Maodo soxu ko bi ci des nee na baaraam buy ñeddi ndabul teraanga nee na baaraam boobu Maodo soxu ko soxlawu ko kenn am nga xam ne teraanga li ñuy wax teraanga kenn du ko ñedd waaw dañuy wax ne ndabul teraanga di ko jokkalante ba mu toj moo gën di ko xëccoo ba mu toj Ah, tabarakallahu sant yàlla ci njabootu xaali Mor Basin yàlla defal na leen jokkalante teraanga la ñuy def ba ndab la toj waaye duñ ko xëccoo ba ndab la toj alhamdulillahi rabbil alamin bi ci des mu ne Maodo de saxul baaraam buy joxar bi mag waaw ah, buy joxar bi mag Maodo saxu ko te saxlawu ko kenn ah, mag daal normal ëpp naat joxar bi baraam tàllal ko sa ñaar la mu ñaanal la waaye bul ko joxar bi baaraam moo tax kon suñu Maam Mor Absa moom itam nga xam ne ci yar boobu la ko wax nañ ni képp kum daan yeewi euh, képp kum daan yeewi lam lay booleel ci teraanga soo demee daanaka mën nga cee dundal ña ngay fekk mën nga leen cee dundal ren ba déwén moom noonu la daan noonu la daan yeewee nit ca mbaax ga ak teraanga ja waaw euh, la daan noonu daan yeewee bu ko defee kon yàlla def na dencoon na euh, juróom-ñaari soxna comme niñ ko waxee. Euh, soxna si mu jëkk a jël mooy soxna faati kebe waaw soxna faati kebe nee na ñu ngi ko daan dàkkantele faatu miim yaa ji moo tudd miim ñu koy dàkkantele faatu miim miim euh, ñu ne euh, amoon na càmmiñ lu tudd demba kebe demba kebe moomu moo nekkoon ak xadim daan ko bindal wala bokkoon na ci ñu ko daan bindal waaw faatu kebe ñu koy dàkkantele faatu miim kooku la jëkk a jël moo nekkoon ab aawam dañuy wax su njëkk bu ko defee soxna Fatou Kebe moomu ñu wax ne am na ci soxna Zeynabu Njaay kon soxna Zeynabu Njaay mooy taawu Mamor soxna bu Njaay la ciy jëkk am euh, teg ci ku ñuy wax El Hadj Malick Njaay teg ci ku ñuy wax soxna Safeetu Njaay muy suñu bàjjen Safeetu door cee teg ku ñuy wax Serigne Youssou Diop Njaay muy Baay Youssou Diop Baay Youssou Diop Njaay kon ñeenti ñii moom la euh, Mamor Absa am ak soxna Faati Mim soxna Faati Kebe muy soxna bu Njaay ak El Hadj Malick ak Soxna Safeetu Ndiaye ak Serigne Youssoufa Diom Ndiaye kon ñeent ñooñu ñoom la am ak njaboot ci Soxna Faatu Kebe ñu koy wax Soxna Faatu Miim mu tegaate seneen soxna muy ñaareelu soxnaam ñu koy wax Faat Ndiaye Seyni Soxna Faat Ndiaye Seyni euh, moo mooy waajuru Soxna Faat Daam Ndiaye ak Soxna Roqee Ndiaye kon moom ñaar ñooñu Soxna Faat Ndiaye Seyni ñaar ñooñu la Maam Mor Absa jot am ak ñoom muy soxna Fadam Ndiaye ak euh, soxna Roqay Ndiaye euh, ba mu pare jëlaat na seneen soxna suñuy wax euh, soxna Yaasin Gay soxna Yaasin Gay moom itam ci la am sëriñ Mamour Ndiaye ak ku ñuy wax soxna Faat Kebe Euh, soxna Faat Kebe mii sax yaakaar naa moo war a mag sëñ Mamour ci niñ ma ko waxee euh, soxna Faat Kebe mi ngi ko tuddee aawam bële muy Faatu miim ma leen ñu waxoon léegi nga xam ne mooy waajuru soxna Seyni bu Njaay ak El Hadj euh, soxna Faat Kebe moom nag yàlla def daal dafa def mu mu teel a génn àddina maanaam bu ñu waxee mu teel a génn àddina mooy jottoon a tàbbi kër waaye wax nañ ne bi muy génn àddina demoon na ba mat ab jànq waaw dañuy wax ni mat na matoon na ab jànq bu mat a dugg kër ci la ci la yàlla defee mu génn àddina soxna Faat Kebe ak sox ak Serigne Mamour Ndiaye kon ñaar ñooñu la Serigne Mar Absa am ak soxna Yacine Gaye euh, ba noppee tegaat na ci soxna suñuy wax soxna Roqaya si soxna Roqaya si moomu euh, moom itam amoon na ci ku ñuy wax maam El Hadj Mansour ku mu woon maam El Hadj kooku moom itam yàlla dafa def mu faatu bi mu nekk xale jotte jotte majeur waaw na ne bi mu nekk bi mu nekk xale la la faatu moom itam kon moom itam jotte majeur bay bay samp kër Euh, tegaat amaat ci keneen ku ñuy wax Nguy Faama Njaay bu ko defee moom itam ñooñu di ñëw ci seen njaboot incha allahu ci jotaay bi ñëwaat ci ko ñuy wax Nguy Njaay kon kooku moom itam euh, ñaar ñaar ñooñu la joto am ak ñoom soxna Roqee si kon euh, maam Alaaji Mansour la am ak moom kooku dafa teel a faatu ci ndawam ak ku ñuy wax Nguy Faama Njaay ñaar ñaari soxna yi nag xawma kan moo ci nekk ñetteel ak ñeenteel jotumaa xam ci ñaari soxna Yaasin Gay soxna roqee si ñaar ñooñu kan la ci jëkk a jël mu nekk ñetteel ak ki nekk ñeenteel euh, ama jëlaat na seneen soxna suñuy wax soxna astabaara soxna astabaara moom itam euh, am na ci ku ñuy wax Moustapha Ndiaye Moustapha Ndiaye moomu nag mag mi ko mag mi ñu ko doon wax moom nee na yëgul ak faatoom waaw yëgul ak faatoom waaye daal wax dëgg moom tam xamutut ci moom dara tamit nag Euh, gisatu ko xamul nja gisul gisul gisul njabootam gisatu ko maanaam gëj na koo gis bu yàgg daal waaw daanaka ba muy toll ci ay dugg kër yooyu la gëj a gis moo tax moom nee na moom xamatul fu mu nekk am na ca keneen nee na Moustapha Diaye moom na beneen rakk mais rakk boobu moom sax fàtte na fàtte nu mu tudd waaw soxna sa baar daal ñaar ñi amoon na xam na xamoon ñaari njabootam waaye kenn ki moom euh, wax dëgg tur rëcc na ko kenn ki nag Moustapha Ndiaye la tuddoon mais moom itam ba léegi euh, xamatul xamatul ci moom dara nee na tegaat bu ko defee mu tegaat ci euh, soxna ami ndaw mu tegaat soxna ami ndaw soxna ami ndaw moomu mooy juru suñu baay Omar Ndiaye ak suñu baay Ousmane Ndiaye ak seenub jigéen euh, Oumy Ndiaye Oumy Ndiaye euh, yaakaar naa moo ci topp moo topp ci sëñ Omar sëñ Ousmane door cee topp Oumy Ndiaye moom moom la wax Oumy Ndiaye ay relaaw moom itam njabootam am na njabootam yu nekk ci groupe bi incha allah bu ñuy ñëw ci njaboot yi dinañ ci dinañ ko wax dinañ ci ñëw. Euh, mu jëlaat seneen soxna suñu wax euh, awakooy soxna awakooy mbaba eh, awakooy mbaba lañ ko daan dàkkantale waajur wa moo tudd mbaba njaay baaye moo tudd ko ñu wax njaay ñu koy dàkkantal ca euh, waajur wa awakooy mbaba ñu wax ne kooku ay ay doomi ndey lañ waaw moo soxna awakooy mi moo Mamor Absa seen ndey ay mbokk dañoo bokke ay doomi ndey lañ moo tax ñu wax soxna awakooy mbaba kooku itam Euh, yaakaar naa ci moom la mujjoone jël ndax kooku moom jotuñoo jotuñoo am njaboot maanaam bis sëñ moor ab sa wàccee euh, bokk na ci soxna yi ko ténji waaye moom jotul woon a am njaboot ak Mamor Absa kon daal bu ko defee mm, njaboot soxna yi moom la euh, sëñ Mor Absa jotoon a denc ci ak dundam ak njaboot yi nga xamee ni ñoom la ci ñoom la ci am ñoo nekk noonu waaw kon daal niñ ko waxee Euh, sëñ Mor Absa Ndiaye soxna yii la jotoon a denc euh, ak njaboot yi la ci door a am la ci jotaam comme nañ ko waxee euh, soxna Fatou Kebe a denc am ci soxna Seynabou Ndiaye ak El Hadj Malick Ndiaye ak soxna Safietou Ndiaye ak El Hadj Youssoufa Diop Ndiaye dencaat soxna suñu wax soxna Fat Ndiaye Seyni am ci soxna Fat Dame Ndiaye ak soxna Roqaye Ndiaye tegaat ci soxna suñu wax Yacine Gaye am ci Serigne Mamour Ndiaye ak euh, soxna Faati Kebe comme ni ñu waxee soxna Faati Kebe mi mu tuddee ko soxnaam sele waaye yàlla def mu teel a génn àddina tegaat ci soxna suñu roqee si euh, am ca El Hadj Mansour tuddee woon ko euh, ma El Hadj Mansour yàlla def moom itam mu teel a génn àddina ak soxna guy Faama Ndiaye moom njabootam ñu ngi ci groupe bi tegaat ci soxna suñu Astabaara soxna Astabaara moom itam am ak moom ñaari njaboot ci liñ xam wala boog am ak moom ku ñuy wax euh, Moustapha Ndiaye euh, keneen ki moom dañoo turam dañoo rëcc bu ko defee kon Moustapha mi itam nga xam ne xamuñu ko euh, xëy na bu yàlla defee ñu gëstu ba gis ko dinañ xam ñu bokkal tegaat ci ku ñuy wax Soxna Ami Ndaw Soxna Ami Ndaw mooy waajuru suñu baay Omar Ndiaye ak Serigne Ousmane Ndiaye ak Soxna Oumy Ndiaye ay relaaw teg ñuy wax Soxna Awa Mbaba soxna aw koy mbaaba moom yàlla def na amut ak euh, Mamor Absa njaboot kon daal loolu mooy njaboot gi xam moom lañ indi woon euh, bëggoon ko tënk ci loolu bu ko defee suñu dellusiwaatee nag incha allahu ñëw ci euh, njaboot yi ñu lim kenn ku ci ne seen njaboot ñiñ ci xam wala ñi ci mën a tudd bu ko defee kenn kuñ ci koo ci rek wala nga gis ko da ngay daal di mën a xam ni kii kat nii la bokkee ci Mor Absa bu ko nga daal di xam ni kii nii laa bokkee ak moom kon ñu tënk foofu incha allahu ba e, beneen jataay bi ñëwaat rek incha allah comme ni ñu ko waxee woon dañ koy séddale ci ñetti jataay ndax ñu mën koo faram-fàcce ba kenn ku ci nekk man koo man koo jàpp ñi nuyuwaat ñëpp di ziaraat ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa